jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñu leen di nuyu di leen di jaajëfal dellu si waat seen émission pencum réew mi muy am euh, samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité euh, honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mu jiite mouvement nekkal fi askan wi moom la ñu invité tey sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu. Abdou Khadre maa ngi lay fay di am mbégte bu baax ci jàkkaarloo ak yow. ci rajo bi nga xam ne rajo askan wi la ñëpp di ko déglu. ci samedi bu jotee bu 15 heures jotee. jàpp 16 heures ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm. di ñaanal Serigne Mountakha xalif sa demoro mu yàgg fi te wér. di ñaanal waa Touba di féliciter askan wi ci li nga xam moom la ñu jógee di leen ndokkeel aussi di ñaan nawet nawetub jàmm di la sant bu baax Cheikh du Bara Dolly laa tudd comme ni nga ko waxee nekk président mouvement nekkal fi askan wi. nekk candidat élection présidentielle 2024 nekk vice président groupe parlementaire liberté et démocratie du changement. Mm-hmm. Euh, suñ bi kon kon candidat nga. <laughs> candidat yaa fi nekkal yaa nekk candidat askan wi wala. waaw man maa nekk candidat askan wi yaakaaru peuple bi. Mm-hmm. candidat di avenir. Mm-hmm. pour 2024 soppi ak doomu daara. mais keroog dégg naa président di la tooñ. waaw mi ma doon tooñ sax xam eh, nit koo xamante ni moom nee na daf ma fan parce que. dëggu gi may wax ak ni ma bëgg réew mi ak ni nga xamante ne ñoon laay euh, dégager li nga xam moom laay wax te ma si benn complexe moo tax fu ñu daje fu nekk mu di ma tooñ di ma sànni xer mais loolu rek mooy àddina quoi parce que njiitu réewam boo demee ba xam heure bu la gisee euh, mu rey ngir yow kooku yaakaar naa ne ñun yoon bi nekk moom mooy mooy bi war a nekk rek mais mais ba léegi yaa ngi maintenir sa candidature yow sama candidat dafay nekk loo xam ne demande sociale la ndax 1960 bi fu may wax ak yow doomu daar yi dañ leen a ginnaawal te 65 pour cent 70 pour cent yi Sénégal li koy doxal si doomu daara la nekk. te ñooñu mosu ñoo def dara bu boole leen si. jànkatuwaay ñoo dañu réew mi pour le moment nag c'est la première fois en tant que Sope ak doomu daara jot na ñu créé ko. muy wan ni ñëpp ni doomu daara war naa mën a laaj baatu askan wi comme ni ko ñëpp laaje te dara bañ ko bañ a xan kon nag ñun comme suñu candidat suñu demande sociale askan wi ko laaj fekk maanaam méngoo ak suñu jëf-jëf ci réew mi ndax doo dem fenn ba ne Cheikh Abdou Bara moo fi def lii ci loo lu jaaruwul la sama taxawaay ak sama pas-pas ci réew mi ñëpp xam nañ ko am naa nag ambition jiite ko parce que ni ko ñëpp jiite maa la ko dàq yor. d'accord léegi euh, Cheikh Abdou Bara Dolly honorable député yow yaay président mouvement nekkal fi askan wi léegi ban ban coalition ngeen bëgg a demee ci élection yi. waaw am nañu une grande coalition lañuy tëgg boo xam ne soppi ak doomu daara. soppi ak doomi daara yi waaw mooy grande coalition bi. Ah. am na nañu ay parti politique yoo xam ne adhéré woon nañ si. am na ay mouvement euh, société yu si nekk yoo ay mouvement lan. am na ñoo xamante ni maanaam ay euh, waa société civile yoo xam ne bokk nañ si ñoo xamante ni foruñu fenn yooyu ñëpp nag bu ñu mànkoo ba pare. fan yii di ñëw dana def benn grande congrès investiture au niveau de Mbacké ndax ñun fu ñu dëkk fa lañ ko bëgg a defee pour que nag fexe seen def route 2024 incha allah. waaw mais coalition soppi ak doomu daara euh, tey yow euh, Mbacké Mbacké nga sëriñ nga léegi est-ce que jàpp nga ne yeneen doomu daara yi nekk si yeneen tarixa yépp dana ci ñëw bokk. waaw ndax projet bi projet askan wi la rawatina projet boo xamante ne projet doomu daara yi ñun dañuy wane wax rek wax fi ñu bëgg a dem génn waat njàngale mag ñu baax ñi teg suñu programme pour réew mi muy économique éducation bi ñu dugal si maanaam njàng jàngale diine ji def si li nga xamante ne mooy jël alal lu ñu réew mi delloo ko war réew mi ba pare di wax askan wi dëgg ndax réew mi ku gëmul yàlla mënoo koo yor ku doyloowul yàlla mënoo koo yor koo xamante ne mag ñu baax ñu mënoo koo yor te yooyu yëpp jàpp naa ne mi ngi si ñun waaw waaw mais yéen doomu daara yi tey bu yow bu ñu la dénkoon réew mi en tant doomu daara mais tey ñi nga xamante ni tey euh, ñoo jàng nasaraan mais ñooñu moom noo leen di def ndax tamit ñooñu ndax xam nga programme ngir ñoom waaw xam nga bu ne doomu daara am na ñu nekk si ñun ñoo xam jàng nañ tubaab mais damay bañ ñu jël maanaam njàng tubaab mi defe ni moo mën a yor réew mi c'est-à-dire lëf yi c'est maanaam euh, slogan la boo xamante c'est un procès pour que delloo maanaam doomu daara ak daara cëram hmm. loolu moo tax ñu def maanaam pour kaddu yooyu pour yëkkati ko mais réew mi ñu ñëpp ñoo koy doxal. su boobu dañ réew mi ñu génn ñoo xam jàng na njàng français bon réew mi day gën a jëm kanam. d'accord mais léegi euh, nee nga euh, candidat nga ci élection présidentielle 2024 est-ce que tey euh, li mu laaj lépp si loo war a déposé jàpp nga ne boo demee danañu valider sa candidature. waaw Abdoul Khadir pour nga nekk candidat dafa am lu la yoon sant mooy danga am cutis cutis am naa ko da am casier judiciaire boo xamante ne dafa set. Hmm. yàlla may na ma ko pour moment parce que. am na benn dossier judiciaire boo xamante ni octobre lañ ko war a àtte même buñ ma si condamné dinaa def appel balaa appel ba pare xëy na élection yi day jàll kon ah, ñaar yooyu rëcc na ma bu dee mbirum caution dèjà 30 millions yi làq nañ ko si benn compte boo xamante ni maanaam moom caution am nañ ko bu dee parrainage am nañ ko bu dee nit ñi nga xam ñoo la war a àndal pour jël réew am nañ ko ñun dara ñu wuñu mm-hmm. l'essentiel li am solo rek mooy génn suñu programme xam fi ñu jëm am suñu vision pour ko doxal réew mi parce que réew mi nag yaakaar naa ni euh, kenn mënu ko doxal sans ñun. loolu laa gëm moo tax que ma xam ni euh, lépp loo xamante ni yoon dañu ko mën a sant pour ñu mën a àgg fi ñu jëm ci yoon boobu la ñu sukkandiku respecter aussi li nga xam mooy constitution yi ak li nga xamante ni mooy règlement yi. d'accord euh, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké euh, honorable député yow demoon nga ci dialogue euh, dialogue national bi euh, dialogue national bi bi mu jeexee yow. ban jàngat nga si am ndax am na ñu bari ñoo xam ne dañoo gis ne dañoo jàpp ñoom euh, ci opposition bi kana dialogue bi euh, wàllum dil la euh, wàllum baara yëgoo yow ndax ku mel ni Bougane wax na ne dil wax na ne baara la Ousmane Sonko wax na lu mel noonu yow ban gis-gis nga ci am. waaw xam nga gis-gis nga si am mooy borom gëmën guy nàcc du wax jàmm. bu dee mbirum Bougane daanaka jërul tontu parce que moom moo xam dil moo tax muy tudd dialogue dil parce que ku xam dil yaa koy wax ñun xamuñu dil. man xawuma ko fekkewuma ko du ma ko fekk jàpp naa ne am na kàddu yoo xamante ne kàddu coxor la kàddu nit ko xamul dara la nit ku bëggul jàmm la nit ku gëmul sa bopp la buñ la wooyee ci loo xam ne day defarum réew te nga bokk ci réew mi da ngay dem nga déglu buñ la waxee loo xam ne mi la nga dugg ci buñ la ko waxul nga génn continuer ni man lii ma gis du intérêt waaye mënoo yow demuloo fekkiwuloo ba pare nga yëkkat sa kàddu ak sa làmmiñ di tël-tëli ngir ko yor sa organe loolu rafetluwuma ko mm-hmm. ndax man damaa jàpp na lépp loo gis ci àddina ci waxtaan lay mujj mm-hmm. ndax tey jii ñoo ñu ngiy tudd yëpp 2019 ñu ngi fi woon bi nga xamante ni ñun xeex nañu ñun bi ñuy xeex ñuy tëj Karim Wade mm-hmm. kenn déggu leen woon bi ñuy xeex bi ñuy tëj Khalifa Sall kenn déggu leen woon ñun kese ñoo fa doon xeex ci assemblée nationale ak ci mbedd yi ñoom ñu nekk seen olala tey xëy na bi ñu jengee wala maanaam seeni laaf bëgg àgg suuf tax ñu yor seeni rajo di wax ak seeni tele waaye bu fekkente ni tey jii ñun xeex nañu fukki at ak benn Macky Sall dund ci insus bu nekk Macky woote waxtaan boo xam ne réew mi la entre askan la réew mi ñoon ñu ak askan wi war nañoo dem wuy ko déglu ko ñun bi ñuy dem en tant que nekkal fi askan wi bi ñu ko amee carte invitation bu jógee ci état du Sénégal boo xamante dafa reconnaître suñu mouvement nga xam dépose nañ ko ba am récépissé sa parti bi. Mhm. ndax parti sax lay demee incha allah. invité nañ ñu waxtaan ak suñu coalition wàllu bi nga xam ne ci mhm. bi ñoom tamit ñoom nañ dañuy dem ci dialogue bi. te kenn ku nekk na invité en tant que parti mais diggante ñoom moo ñu wax loolu ñu informé leen bi ñu ñëwee tamit ñu waxtaan ak suñu waa. ñi nga xam ne ñooy suñu waa parti cadre yi yeeg ñëpp tax ñu laaj leen lan mooy seen xalaat ci loolu. ñu waxtaan ba pare ñu bind benn mémorandum jox ma ko ni ma comme benn carte la yow yaay njiit bi demal boo demee mel na ne ñëpp dem na bi ñu dem dañoo cité ñeenti point yi lañ cité. ci li nga xamoon mooy mémorandum bi nga xamoon moom la ñu yóbbaale bi ñu joxoon kàddu foofa. yooyu la ñuy wax. mais bi ñu demee ñu ne kat opposition bi dafa bari waaye ñii ñooy wax si ñii ñii ñooy wax si ñii ñu nangul leen loolu. ñoom ñu ni léegi article 27 bi nga xam ne moo nekk ci code électoral bi. waaw euh, euh, euh, de article article article 28. bi nekk si code électoral bi. Mhm. ak article 29. bi nekk si code électoral bi. Mhm. nañu ko modifier changé ko. ok ñu bind ko. loolu ngeen yóbbaale woon si dialogue bi. ci dialogue bi. ñu ñu article 27 bi nga xam moo ne ci constitution bi nga xam ne Macky Sall mënut a nekk trois am troisième mandat nan ko fa souligner mu respecté constitution article 28 bi nga xam dañuy wax ne maanaam doomu daara boo déggul tubaab mënooy réew mi nañu ko dindi parce que loolu injustice la te loolu ministre la justice bu ñëwee incha allah assemblée nationale bu ñu ko ubbee lundi pour section rawatina ak loi bi dinaa def amendement pour wane ni maanaam loolu duñ ko war a dindi wala ñu modifier ko parce que jaaruwul ndax loolu injustice la am réew nit mënu faa dëkk nekk cinq pour cent ji population boo xam ne dégguñu nasaraan. ba pare maam ñu ne réew mi yow boo jàngul nasaraan doo jiite réew mi loolu institut dañ ko di la séeréer ndax loolu tubaab yi ñoo fi indi woon te tubaab yi nekkutuñ fi <laughs> loolu laa bëgg maanaam loolu ñu yemale ñëpp ndax Sénégal pour ñëpp la ñëpp la ba ñu demee tamit yàlla dogal na maanaam point yi ñu yóbbu woon ñeent yi ñett yi ak accord nañ ko mm-hmm. ñu def suñ comité dialogue da dialogue bi dialogue politique mm-hmm. ñu yem fa ay nit yoo xam ñoo ñu fa yóbbul mm-hmm. défendre loolu ba yàlla may ñu ndam ci ñetti point mais loolu baax na dañ koy am wuti wàll na li nga xam jubawun si mais bu ëllëg bu dialogue amaatee ñu waxaat yooyu mooy bulletin unique bi ak nit ko xam na ngay nekk président ba ñu jiital sa parti ak ak ak li nga xam mooy article 57 bi nga xamante ni Aly Ngouille Ndiaye moo ko si dugaloon ci 2018 ma article 57 boobu Aly Ngouille Ndiaye bi mu nekk ministre de l'intérieur bëgg Macky Sall falu. xam na ni Karim Wade Khalifa Sall mën ñoo bokk candidat ndax boobu code électoral bi aayewu leen ko woon. mu ñëw indi ay galgalam. wax ne lay kat nit bala ngaa nekk kan nga nekk électeur mhm. te bu la condamné doo mën a am électeur mhm. mu dugal ko ci biir mhm. loolu mooy li nga xamante ni moo nekkoon problème bi kon jàpp naa loolu lépp nag comme waxtaan la lépp di sottee guerre mondiale ci waxtaan la mujje Ukraine Russie ci waxtaan la mujje waa PDS xeex na fukki fukki at benn si yi pour Karim Wade ñu refusé li nga xam moom mooy condamnation CREI yi ñu lànk ci waxtaan la mujje Khalifa Sall déposé na candidature am pour élection présidentielle 2019 ba tàyyi may ñu ko ñu xeex ba tàyyi bayu ñu leen ko ci waxtaan la mujje fii loo gis àddina waxtaan kon jàpp nga ne eh, ñi ñëwul ñoom dañoo perte mais waxuma dañoo perte sax mais dañoo buggul Sénégal ku ñëwul si dialogue da nga bëggul Sénégal Sénégal ku ko bëgg bu nu wax bu nu waxtee waxtaan da nga war a dem d'accord léegi euh, euh, projet de loi yooyu danañ ko yóbbu assemblée nationale yéen pare ngeen pour dem euh, pour voter yëpp projet de loi bi ñëw na assemblée def nañ si waxtaan démb danañu maanaam ubbi assemblée nationale def section extraordinaire président de la république sesi na assemblée. altine dana daje 10 heures. bu ñu dajee ba pare maanaam mercredi dañuy def commission. dañuy taxawal commission loi commission loi si ñu daje en tant que membre commission loi. Euh, jeudi bi wala vendredi dana def plénière bi incha allah. wote ko ko. su boobaa nag comme ñun ñu ngi si projet bi jot nañ ko. yéen a ngi koy càmbar xool fi may wax ak yow jox naa ko ñi nga xamante ni yenn expert lan ñi jëm si mbiru modification code constitution bi parce que constitution bi mhm. mooy code électoral bi parce que dafa may changement ndax code électoral dafa bari lu ñu si yokk mhm. parce que article 29 et ko mais dool nañ si aussi tamit ni dafay am ay organes yoo xam ne léegi mooy ñoom ñoo war a saytu parrainage bi xam nga loolu lu baax la bu njëkk amutoon ñu koy saytu mais ñoolu ñu buñ ko jàllee ñi nga xam ñëwun woon daan si bénéfice bu njëkk am na ñu bari ñoo xam bàyyi war na parrainage amuñu woon kuy saytu seen parrainage mais kooku du sant yàlla beneen bi nga xamante ni maanaam moo jëm ci constitution bi ñu war koo modifier mais man la ma doon xeex di ko wax wax ne man bu ma jëtee réew mi bool naa ko sama maanaam euh, li nga xamante ne moom mooy moom laay def ay réforme ci justice bi nga xamante ni léegi dafay am parc financier. Hmm. mais loolu dañ koy def ndax bokk na si ne xam mooy réforme bi. Hmm. dañ ko wote ensemble national. parc financier parc financier mooy am léegi léegi kër yi dem. kër hmm. dañ koy dindi. ci li ci projet bi ñu jot. dañuy dindi kër yi. mais dañuy créer parc financier léegi. comme li am France. léegi parc financier boobu noonu moom mooy jëm euh, maanaam euh, saytu luñutu xaalis bi nga xamante ni nit ñi dañ ko détourné ak di am xaalis te tegul si yoon. loolu lépp maanaam léegi parc finance bu ko taxawalee. mais loolu démocratie la te loolu dafa yokk ndax loolu tamit li nga xam mooy réforme euh, jox dellu si li nga xamante mooy cëram la mais boo fekkente ne créé yi bi ñu defoon nga xamante ni bi ñu ko léegi nii daanaka Karim Wade rek boo xamante ne kun ku ne xam nañ si yoon yaakaar naa tey bu ko dindee loolu part la boo xamante ni pour démocratie bi jëm kanam la euh, ba pare ñaareel bi am na si loo xamante ni modification ci constitution bi article 87 bi mais article 87 woote na dañ ko war a waxtaane mhm. ah oui dañ ko war a waxtaane parce que man d'accord ma si ni ko doxal ndax article 87 bi dafay jox Macky Sall sañ-sañ boo xam ni à tout moment ajjuma bi ñëw nii bu projet loi bi jàllee bu ko neexee day tas ensemble cinq bis topp te loolu jaaruwul mhm. ndax assemblée dafa nekk institution boo xam ni mënuloo président bu ñëw rek boo fa amul majorité nga tas ko bu newee ba 2024 ki mu fi teg bu gañee ñu def élection législative. ñu gañe ko ñu gañe ko day tas ensemble encore. ah bon à tout moment. kon fi mu nii président Macky Sall mën naa tas assemblée euh, avant 2024 ñu couplé koog 2024 élection yi. loolu si jublu ndax assemblée bi mi ngi ko war a tas bu ñu defee élection présidentielle ba pare day tas assemblée nationale cinq bis topp ñu def élection législative mais gëw ma dana am coup place mais li ma xam mooy. tey même moom bu fekkee dafay teg candidat candidat boobu nekk fi gagné présidentiel ñun ñu dem ba nga xamante ni tey jii élection législative bi ñëw na ci même pas deux mois ndax dañoo bëgg élection élection présidentielle nekk même cinq ans parce que élection yi dafa bari kooku bu ko neexee bu opposition bi amee mesure comme ni mu ko def nii wala mu am ay blocage day tas ensemble national ci gos eh, ci li nga xam mooy modification bu bees bi. bu lee bu njëkk ñaar ñaar nga noonu toog bu njëkk da toog ñaari at. lu ensemble sax bu bolokee bu bolokee wut ak sa yoon nekku si boo dara nga si man tant que ñaari at yi matut. sa sa sa deux yi nekk président mais bii yoon nag loolu dañ ko war a waxtaane moo tax man il faut que ma defaat proposition ci loolu ndax député yi wax dëgg yàlla assemblée bi ni muy doxee baaxul. quatorze législative moo gën a niil si mboolem assemblée bi. bii nii bii nii. d'accord a loolu bari na xeex bari na xuloo bari na saagante parce que ñi nga xam ñoo ñëw assemblée ñoom prévoir woon yi ñoo war a ñëw parce que ay suppléants ñoo ñëw waajaluñ leen waajaluñ leen ñi nga xam ñoo nekkoon leader yi ñëwoon waroon a ñëw te ñëwuñu moo tax que bu ñeneen ñëwee te bokk na ñu waroon a ñëw nii la ensemble mën a doxee. te bennoo tamit ñu bari dañu def changement. waaw dañu def ndax boo tax que ñu nekkoon si bennoo te nga xamante ni gis na ni ñoom amoon nañuy xam-xam pour rester fa. bi ñu ñëwee ba nga xamante ni gis na ni ñii ñi fi nekk du ñu seen nawle duñu seen seeni moroom ci xam-xam wala ci yenn kii yi dañu fay gis ay saako xuloo ñu bàyyi indi ay saakat yoo xam ne dañoo nekk bennoo ak ay xasakat ay xale yu ndaw indi leen fa loolu moo dal kalaasu ñoo mataar jur gi ñooñu ngi gis ñu ñëw pour que maanaam ñëw man a defanteeg ñi nga xamante ñooy booy waay wi yeewi askan waaw ah, ci la bokk loo tax gisoo ko muy suñu garaan boobu bu wax jotee moom lañ def si kanam parce moom <laughs> loolu xam-xam ah, xam-xam mataa amul nga si loolu la loolu mooy lay wan ni la léegi ma ne léegi pour que ñu mën ko gën a xoolaat man damay proposer assemblée nationale ci biir conseil un amendement heure bu ñu tase assemblée. député boo xamante ni tey jëloon nga engagement sur assemblée assemblée fay ko l'état Sénégal parce que tey député yi benn boo ko yaakaar. waaw ah. kontaanuñ. keroog wax nañ ko Macky Sall pré bi dama ni kontaanuñ député yu bëree bëri am na 30 millions wala 40 millions yoo xam ne dañu ko leb si banques yi mais bu ñu ko tasee suba banques yi ñoom la ñuy topp duñ topp assemblée. te bay ba tey jii dugalaguñ ko si affaire bi te duñ ko war a boole ci li nga xamante ni mooy réforme bi nga xamante ni à tout moment ku tas assemblée. député bu fa nekk respons euh, charge bu mu jël. Mhm. assemblée koy fay. su boobaa wala nga fay ko li des si waaw su boobaa euh, wala nga des ko li fay si mandaam mais su boobaa euh, banques yi danañu mën a mais fi mu ne banques yi dañu tiit banques yi jël seen xaalis yëpp lebal ko député yi bu ndes si assemblée mais député boo xamante yow amuloo oto boo dem taxi ngay jël li la banque lebal moom nga dem jënd ko sa terre fay ko say bari nga doon campagne léegi boo demee ba assemblée tas banque bi lu topp foo ko fa dañ lay tëj si kaso bi moo tax il faut que ñoom ñu xoolaa bi mais loolu garaaw na ah. ah passé na garaaw dañuy di xam. mais ñoom lañu di xam si dara. mais lu jëm ci wàllum euh, chef de l' opposition tamit nee nañu léegi chef de l' opposition amul sañ-sañ di fekki part au pouvoir. waaw xam nga chef de bi ñu ngi ko see wax mais chef de l' opposition dafay rester ci opposition mais li ñu ko jox ci ay mooy dafa bari. mais loolu lépp Macky Sall boppam la ko defal. parce que Macky moom ñaara mën a am moom mooy gagné ki mu fi mooy gagné wala mu topp si ki gagné. Mhm. moom bu fekkente ni tey xam na ne chef de l'opposition pour nga pour nga pour nga euh, nga nekk ko yow yaay nekk deuxième. Mhm. fi ak élection présidentielle yi Idriss Seck mi nekkoon deuxième mënu see bénéficié wu. Mhm. mais élection présidentielle bii ñëw nii leer na ko ni moom bu fekkente ni maanaam ki mu fi teg gañewul kii gañe mooy topp si moom. nekk chef de l'opposition moo nekk chef de l'opposition moo jëlaat yëf yi. Mhm. loolu la moo tax maanaam lépp du ko def pour boppam rek. kan moom waaw d'accord jërëjëf euh, honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mbokk yi mooy njiitul mouvement nekkal fi askan wi moom la ñu invité tey seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM léegi sëriñ bi yow da nga jël dogal ngir dem ci élection présidentielle 2024 euh, euh, même sax ci dialogue bi kaaw Khalifa ak Karim bi war a dem ci élection jàpp nga loolu aussi lu am solo la waaw dafa am solo parce que loolu nag dafa nekkaat si loo xamante ni pour nit ki bu fekkente ne xaaj na ko élection ci yoon moo ko xaj ndax ñoom ñëpp kenn ku nekk dañ la condamné mais condamnation bu dee Karim ku ne xam na ne CREI yi jaaru yoon te mosuñu ko condamné si détournement dernier public Khalifa ñu ngi ko condamné woon ci li nga xam moo nekkoon. Euh, caisse d'avance bu da maire Dakar mais yoon moo leen tënk. parce que nee naa la article bi Aly Ngouille Ndiaye indi woon ci li nga xamante ne mooy modification électorale 2018 moo tax ñoom nekkuñu candidat. waaw mais tey ñoom bu ñu nekkoon candidat ñoom. ñu génn ñoom ñooy génn. waaw ah, kon bu nekkoon maanaam Karim Wade bu dekkoon élection présidentielle 2019 bu gañuwul moom mooy topp si ki gañe parce que Ablaye Wade moom moo ëpp doole ginnaaw maanaam parti au pouvoir fi nekk. Mhm. waaw mais tey euh, Ousmane Sonko mi nga xamante ni tey euh, moom li mu wax mooy euh, dina bokk ci élection yi. wala wala élection du am noo ko gisee yow. waaw loolu moom dama ko gisee mooy waxi politique la rek parce que Ousmane Sonko du Sénégal Ousmane Sonko malgré que li ñu koy teg jaaruwul tegul si yoon dama ko ñaaw la naqarlu ko parce que citoyen la comme tout le monde. Mm-hmm. malgré que am na ay jafe-jafe ak yoon yoo xamante ni benn bi eh, kàddu moo ko yóbbee beneen bi moo dem foo xamante ni xaw ma lu mu fa doon wuti. xaw ma war na faa dem xaw waru faa dem waaye moom moo fa yóbbu boppam ba coow fekk ko fa malgré que am na si loo xamante ne seen complot politique comme ni ko doxaleeg noonu parce que kenn ku nekk am nga liberté dem. yow nag yow mii xëy yaay nit ki yow yaay xool place yi ngay dem yëngu du dem. man man mii wax ak am na foo xam rus naa ku fa ba naan ba ma fay gis ba dara ñoom fekk. moom am na sañ-sañ bi xay naa am na loo xamante ni moom comme ba ñu ko woon ba dem fa ba mbir fekk ko fa mais ñaar yooyu yëpp dafa nekk si ay yoon. kii dafa joteeg nit ku góor kii dafa joteeg nit ku jigéen ñu ne léegi yoon mooy àtte nit ñi parce que justice il faut que ñu respecte justice ak décision bu mën di jën parce que man mi wax ak yow justice mi ngi may topp ci loo xamante ne ay kàddu yoo xam jàpp na ni jaaruwul ñu tëj ma si kaso euh, génn ma ci tey ji maa ngi ñi nekkaat député ëppaat ndomba tànk bi ma bat kooku ndogalu yàlla men yàlla bu la naree natt dafa am fu mu lay jaarloo mais bu fekkente ni tey da nekk si réew moo nga am justice boo xamante ne yow ni ngay wax ne jaarul yoon ñëpp xam ni am na si yenn ñoo xam ne ñuy doxale jarul yoon da ngay gëm sa justice bañ a mel ni da nga Mali wala bu Gambie boo jotee ci réew mi ne nga sans justice ni nga ko bëgg a doxal mu doxe noonu mais bu justice xasee doxale ñu ñëpp dogal ñu ñëpp dañu war a maase wu euh, respecté yoon parce que boo respectul yoon euh, day mel que ni euh, nekkuloo citoyen te ñu ñëpp ay citoyen lan loolu moo tax moom bu fekkee dafa def ay kàddu ni c'est bu nekkul moom wala bu bokkul dara du am mais loolu communication yàgg na ko fa dégg parce que Khalifa Sall fii ngeen déggoon ay nit taxaw nii sans Khalifa élection du am. Karim Wade wax nañ fii sans moom élection di am. élection du Karim Wade du xalifa mais Sonko na du xalifa du yi euh, ñoom waxoon nañ ne bu Sonko bokkul ñoom élection du am waxoon ko élection législative yi passé mais xam nga yooyu yëpp c'est une communication politique c'est bien baax na mais nag xam nga aussi il faut que ñu delloosi en la raison parce que Sonko ndaw la nit ñi bëgg nañ ko te moom jàpp naa du yàq réew mi man gëm naa loolu parce que Sonko xam naa si moom patriote hmm. patriote na xam naa ko moom bëgg na réewam mais xam nga li may wane ni Sonko c'est une patriote il y a 2019. Mm-hmm. élection élection présidentielle bi mu jàllee euh, Sonko moo jëloon troisième. Mm-hmm. bi ñu xoolee résultats yi résultats yi maanaam ñu xam ne lii am na ay sàcc ak ay njulan ñu def benn réunion ñun ñi nga xamante ne maanaam ñooy kàndaay yëpp ñu daje permanence bokk gis-gis maa ngi fa woon euh, après euh, Idriss Seck a proposé nan leen wàcc si mbedd yi na leen génn. moom Idriss waaw sonk ni moom du génn. parce que moom jëlul deuxième ba pare ñaareel bi daal du génn wala bu ñu dee génn yow jiitul. après ñu jógee fa dem kër Idriss Seck bi ñu demee après bon jabar Idriss Seck ma gis si salle bi mu indil euh, Idriss Seck am euh, salade de fruits <laughs> Idriss Seck lekk fàttali xew si réew mi <laughs> moo lay wan la te jamono jooju fekkoonte ni tey toppoon na Idriss Seck wala maam nit ñi naan génn nañ génn leen day génn boobu laa xam ne kii c'est un parce que moom xam na ni malgré que sàcc na élection yi mais bi Idriss Seck ne génn leen xeex. mais nanguta génn xeex mais comme nag situation bii ni mu demee nii bon chaque jour que communication bi mu ngi juum si yenn communication yi ak di dëkk état parce que état du Macky Sall aussi état c' pas le Macky Sall république bi du Macky Sall Macky Sall c' est une la. mais li nga xamante ni maanaam mooy état mooy gendarmerie mooy police mooy. Euh, ah armée mooy justice. Mhm. loolu mooy état. léegi fekk da nga dëkk état bi nag ah. yaa ngi dayoo da ngay problème. parce que mais nga discours politique la rek. mais discours pas que nekk discours boo xamante euh, Sénégal moo ëpp Sonko nag aussi. mais Sonko blocus bi ñu ko def ndax yow. Euh, rafetlu nga ko. non d'accord ma si dama ko ñaawlu ndax tey jii euh, nit ki mënul la tëj sa kër ni la bul génn te teguñu ko fenn décision si si amul foofu euh, Sonko am na bayra boo xamante ni parce que bayra la ndax nit ki yàlla mooy dogal dara si yow mais bayra lay doon boo xam ne foo jëm ni ñu topp la te du ko sañ a bañ. nit bëgg la te xam lu tax ñu bëgg la. ndax Sonko nit ñi duñ ko bëgg te kenn mu la lii laa bëggee sonk kooku yàlla moo koy def bon loolu bu amee tey. kon yow d'accord nga ne dafa am popularité. non si dafa am popularité xam naa ko comme man rek parce que man euh, euh, ni ma mel si Sénégal ak noonu la mel man bi may tey foo dem fongali mi boo nee Cheikh Abdou Bara Dolly ñu xam ko fu ma génn nit ñi ne ma Cheikh Abdou Bara Dolly mais euh, li Sonko am ci popularité awuma ko kooku yàlla moo ko dogal nangul naa ko ko mais popularité du tax mu nit falu du tax nit falu nit ñiy fal ñi ngi seen biir kër nit ñi mën na la bëgg topp la mais ba élection jotee doo gis kenn te aussi da nga am si popularité dem ba si biir nga ñàkk ko ngir say kàddu mm-hmm. moo tax Sonko man la ma ko doon conseillé depuis démb ak bërki démb ak tey ak suba la laay conseillé xale la am na xam-xam ci réew mi la dëkk mën naa dem ba yor réew mi waaye na def tey ndax kat am réew mu jëm si kanam tey ak xam-xam moo koy doxal. ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ñoo ko wuroon te ma waxoon ko ko ñu si bari bëgguñu ko te lii mu nekk tey ñoo ko si dugal parce que nit mënuloo ànd ak moom mu am ay jafe-jafe. yow séqoo moom jafe-jafe lu du yow ngay def sa congrès investir ak bëgg nit ñi di la woteel nga bëgg maanaam yow nit ñi ñi ànd ak sonk jëlaa leen pour woteel la ak Sonko jafe-jafe ñu am tey bu mu fekkoonte ni man damaa bokk ci ñoom. waa yeewi waa yeewi askan wi bu ñu aayee Sonko investir man dama def sama investir damay soldat ak sonk ba su bu nit noonu ngay dox. mais gis nañ ne Déthié Fall deful loolu ay dëmbooj deful loolu. Aliou Sall ñoom jaar nañ ne la. waaw mais moo lay wan ne la ñoom gëmuñu gëmuñu Sonko fi mu toll ñoom ñëpp dañoo jàpp ni bu Sonko fakkasloo ñu jël ay nitam fi mu toll loolu fi mu toll loolu yëpp loolu la ñuy ah. nga euh, exemple fi ma leen mën rek yow sans Yewwi Askan Wi xam nga Habib Sy. Habib Sy waaw sans Yewwi Askan Wi. dafa jeexaloon politiquement. sans Yewwi Askan Wi mais Yewwi Askan Wi ko yëkkatiwaat. Mhm. Déthié Fall. Mhm. sama la. Aïda Mbodj ñoo bokk sëñ Touba mais yeew tu Ousmane Sonko. moom mooy nit koo xam boo ko jigee daf la yóbbaale. comprendre nga ci popularité am maanaam ñoom ci daraje Sonko la ñuy dox. <laughs> loolu doy na waar de. billaahi san Sonko du ñu nekk. mais jàpp seen intérêt moo tax. seen seen intérêt tax ñu ànd ak Sonko mais du intérêt Sonko te Sonko intérêt mooy mu ànd ak moom kese boppam ak ñi ko gëm ak ñi bëgg réew pour dem. dama lay wax tout benn dog boo xamante ni après élection législative yi yi passé Sonko m'a appelé Cheikh baar Bara Dolly maa ngi sama bureau sama salle man ak Barthélémy Dias def nañu benn liste fooy boo xamante ni 2024 ñu ñu ñoo war a ànd pour gagner réew mi muy ay ndaw yoo xamante dañoo gëmoon seen bopp gëm suñu réew ànd ak Sonko si wetam mais malheureusement tey. boobu yàgg na. Euh, après après élection législative rek. ok oh, waaw ah. ma ne ko Sénégal mi ngi sa loxo mais Sénégal nen la. benn nen la bu teg sa kaw loxo mais nen boobu noonu ba tey ngëbugoo sa loxo à tout moment noonu mën naa wadd li ko doon ngëbloo xam nag mooy mu gëm boppam bañ a attaché wu si kenn jël procès am ndax 2022 ba élection législative yi jàllee Sonko amoon na loo xam si popularité bu fekkoon deful ay communication ba 2024 jot bu toogee këram jël réew ah bon oui. 2022 après élection législative hmm. bu toogoon këram deful benn communication ba 2024 mu dem campagne day jël réew mi. mais diggante boobu nit ñi xàttal nañ ko fi nit bu la toppee ay nit topp la yoo xamante ñëpp bokkuñu bëgg-bëgg bokkuñu gën ngay gis ku nekk ak ay xalaatam dangay dem ba mujj yàgg bu la ñëpp ne ñëw da ngay jaxasoo ndax xelu ku nekk ngay déglu hmm. mais man la ma ko conseillé woon jamono yooyu mooy yaa ngi sa procès defal sa programme l'extérieur nga génn toog sa dëkk liggéey sa liggéey élection présidentielle jot bu tey nga jël réew mi bàyyi coalition yeew bi man loolu laa ko waxoon. ndax Sonko euh, amul lu ko yeew yokkal. mais mais digganteem ak Barthélémy Dias nag. a ah, mais digganteem ak Barthélémy Dias digganteem ak keneen si am parce que xay na euh, ay intérêt bu ñu dajee mën nañu ànd ma bu intérêt bi tasee tàggoo euh, jeexee ñoo koy tàggoo. parce que seen intérêt noo daje woon ci ay jamono. Barth bëggoon a jël maire Dakar bi mais Barth sans sonk du gagné. Dakar ah, ah oui <laughs> sans mu parti mënut a gagné Dakar. kon Sonko tax mu gagné. ah oui bokk na si de. loolu moom ku ku ku ku waxal sa diggante yàlla euh, xam ni euh, sans Sonko parti du gagné Dakar. waaw te fi mu toll nii bu suba doon élection. bu Sonko nekkul du gagné Dakar loolu moom mën naa ko waat si yàlla mu bind. d' accord jërëjëf euh, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly honorable député yow yaa njiitu mouvement nekkal fi askan wi président Macky Sall nee du dem ci élection 2024 bi mu ko annoncé euh, ban yëg-yëg nga ci am. kontante yëg-yëgu mbégte aussi parce que euh, président Macky Sall c' est un parce que def na def yoo xamante ni moom la ñu xaar si moom. Hmm. man xeex naa ko fukki at ak benn Macky Sall naa fukki at benn. Hmm. lu nekk dañ naa ko xañ naa ko Touba mës a gañu Touba élection Macky Sall loolu la loolu laa man ci xeex. <laughs> ah fi nga dëkk fi ma dëkk. fexe naa ba Macky Sall dekk na président la République ba ni mu wàccee sa a gañu Touba te man naa ko xañ te wax naa ko ko mais bi mu defee acte loo si jublu ci xeex ko. xeex dama bëggul maanaam doxali na moom naa rafetlu wut ci kilifa diine yi ci réew mi ci yoon bi. mais pourtant kilifa diine yi. Euh, dañoo wane ne dañ ko bëgg. non kilifa wane woon nañ ko bëgg de. parce que dëgg ñun ku bëgg sëñ Tuubaa ñu bëgg la parce que sëñ Tuubaa mooy tàggat nit koo xam ni dañuy wane da nga koo soppi ci sa xol taalibe yëpp soppal du nga a bañ. ñun gis nañ loolu doxali nag waa Touba bëggul ko bu fekkoonte ni mel na mu war a mel Touba du contre ndax moo jëkk jàpp ci histoire Sénégal seexub Serigne Touba tëj ko si kaso bi kooku yaakaar naa ko kenn du ko fàtte jàpp ma man sët ñeneen ñeneen ñeneen ak ñoom Serigne Assane Mbacké Macky Sall li mu jàpp ci ay mbàkk mbàkk gu sëriñ kenn xamul nu mu toll te leen si kaso bi si nguuram kon jàpp naa ni mais loolu lépp bi mu ko defee dafa def keroog acte boo xam ne c'est un acte boo xamante ni yow yow yaay ki njëkk si histoire Sénégal nekk président de la République organise ay élection mu fekk la fi te doo ci bokk kooku moo ko njëkk a def. ñaareel bi mooy sàmm na kàddoom aussi mais respecté na aussi constitution bi. xam nga sàmm kàddu ak respect constitution bi ñaar la sàmm na kàddoom ci ay téere yu mu bindoon téere mu bindoon boo xamante ni mu ngi ko tuddoon pël gi juróom benn yoon wax na si ni moom 2019 bu ñu ko falee mooy second mooy dernier mandat ci livre boobu noonu sàmm na kàddam ak kilifa diine yi nga xam demoon na ci ñoom jox leen seen kàddu ku si mel ne seen Sidi Moxtaar ñu ngi koy ñaan yàlla yokk ay leeram. ni ko du def troisième mandat dafa bëgg def référendum ngir affaire mandat jeex 2016. sàmm na kàddoom ci bitim réew ba nga xam waxoon na fu nekk ni du ko def sàmm na kàddoom ci biir réew mi loolu nag bu fekkee dafa am ñun ñu nekk ak moom ci biir réew mi. te muy nekk suñu président la République boo xamante ni li mu def dafa siggilaat Sénégal delloo ko maanaam beneen xar kanam. nga dañ ko war a bu ndee ay nit wala ñu di ay gor. loolu moo tax man bi mu ko amee bi mu ko defee ma yëkkat sama téléphone woo ko jaajëfal ko kañ ko ci jëf jooju si ñu xam ni kat bu fekkoon dafa tomb li nga xam moom maanaam mooy topp li nga xam mooy pression bi ñim nekkal. di ko teg muy famille politique muy famille bi nga xamante ni ci la bokk muy ñenn ñi bokk ci réew mi kon su boobaa dana doxale neneen te su doxale woon neneen gàccaam lay doon. mais gàcc Afrique lay doon gàcc Sénégal lay doon ba pare genre bi dafay nekk loo xamante nii dafay mettil di taasal ak nekkinam te kenn xamul lan lay lan lay lan lan lay doon ci réew mi après. loolu ah, jot naa ko téléphone loolu moo tax bi mu ko defee wax dëgg yàlla euh, rafetlu nañ kaa rafetlu nañ jëfin bi euh, te di ko ñaan yàlla fa jëm ëllëg nekk fu gën si moom moom ak njabootam man loolu laa gëm ba pare euh, bu ma ko wuutoo incha allah dinaa ko delloo cër bi premier sommet bi njëkk a am. dina ko fa yabal ba pare dina ko jox euh, statut bi nga xamante moom la yelloo te du ma ko topp du ma topp njabootam incha allah. bu ma yàlla may ma jël réew mais honorable député yow ko seq ak moom ay wootante téléphone ak yu demee noonu loolu moom jaaxal nañu bëri bëri nag. Macky Sall du sama noon Macky Sall sama adversaire la. man Macky Sall avant muy avant may may nekk candidat wala muy nekk président de la République xamante woon na ma moom léegi kon Sénégal wala àddina dangay ngay xamanteeg nit ki séq ak moom jàmm mu nekk président de la République nga contre ko tax nga noonu ak moom man lu ma noonu parce que tey ji am nañu bokk si nguuru Macky Sall yi yoo xam samay xarit lan am nañu nekk si opposé am ñoo xam samay xarit ñoo ñu bokk si opposé nekk samay xarit ëllëg bu ñu jotee si réew mi dañoo war nekk samay noonu wala ñu nekk si nguur gi nekk xaritu Macky Sall ëllëg bu ñu nekkee opposé dañoo war nekk samay noonu waawal déet damay wax sama kàddu yépp ni Macky Sall sama xarit la waaye sama adversaire politique la contre naa ko xeex naa ko tëj na ma kaso tëj na sama entreprise nangu na samay kër mais bi sama yaay gaañoo mooy ki ma njëkk a woo félicité euh, euh, jaale ko ci mboolem koo xam yaa ngi politique si dëkk bi. moom Macky Sall moom Macky Sall. waroon téléphone. téléphone la ma woo jaale ko ba pare yabal premier ministre am yabal délégation assemblée yabal ministre ministre des finances am leen ñu jógee conseil ministre déplacé ñëw toog wante pour opposition bii ma bokk nga xamante ni maanaam lu nekk defal naa ko jarut tegul tànkam jaale sama yaay bi ma nekk si kaso bi ñu seet si wu bi sama doom feebaree woowu loolu kay bugaan waxi nopp. jaalisi wu la jaalisi wu ma. bugaan jaalisi wu ma woowu ma téléphone. te bugaan lu nekk si xam ko bugaan bi amee jafe-jafe rek ci li nga xamante ne mooy seen yi man la contacter maa dem seeti premier ministre ànd ak moom dem si direction générale impôts domaine. fa laa fekkante ñaari Mamadou Ibra Kane yi ak Serigne Mbaye ak Serigne Mbuub suur boobu. ah bon ma ne ko kii dama ko indi pour dénk la ko taalibi sëñ Mbàkke soxla loolu te sëñ Mbàkke soxla wóor te suuxat jëmba dara mu wan ko ginnaaw muy dee. dama bëgg ngeen bàyyi buggante jàppale ko mu liggéey loolu bokk na si li tax mu continuer liggéeyam bi nii. kon lu waral lii. waaw ah, lu waral lii mooy dama sama yaay dafa faatu jaali suum ba pare mu nekk si rajo yi di tëltaleeg lu di wax naan si man maay Mor Ndaje ndax benn dossier 90 milliards bu ñu doon tuumaal Mansour Faye ma ne ko maanaam financement extérieur day day ñëw senegal te du jaa te du jaa lii rek la ni mu meree waa Pastef rek ne la ma meree waaw parce que nee na lu ko dal bu ko euh, Bassirou Diomaye Faye moo ko yóbbee. <laughs> moo tax mu bañ Pastef <laughs> man ñu noonu la ma bañee parce que daa jàpp ni xëy na comme man nit laa koo xamante nii man dama am sama liberté man kenn du ma tënk. ñëw na fii sama kër ay yoon yoon yoon. di sàkk si man pour ñu ànd man ak moom. moom Bougane moom Bougane li ma ñor rek mooy taalibi Sëriñ Tuubaa la ab taalibi laa ko jàpp jàpp mu ko leen. d'accord léegi yow euh, kon si nguuru Macky Sall gi jot nga see dund ay injustice maanaam ay jafe-jafe. yu méttee métti yi ma si dund ginnaaw Karim Wade Khalifa Sall amul kenn ku si dund si ñoom parce que ñoom ñii kenn dugg si kaso. ñaar fukk ak juróom-ñett opposition bi ngay gis ñuy wax nii di rëy laa ñu wax nii tàmbalee ko si ñoom ñëpp ku dul Khalifa Sall Karim Wade ni ma si dugg si kaso bi nii ak li ma si daj kenn daju ko si man nee naa la fii laa am sama ñetti kër ñu nangu ko pour si nguuru Macky saal fii leen ma fekk sama kër tëj ma yóbbu jël ma yóbbu ma tëj ma kaso sama entreprise tëj na si ay impôts yu ma doon topp. Ah. mënu ma liggéeyati fi mu toll may wax ak yow. dañ laa def redressement fiscal. waaw ma tëj entreprise bi aw ma ko nu may def. ana kër yi xanaa tëj gi ma tëj kaso sel sa ci la sama sama jabar fekk mu toll en état si la sama doom feebar fukki weer ak benn sama doom yi hôpital raakolee lekk bi fi may wax a yow ci nguuru Macky saal mi ngi États-Unis fa lañ ko yóbbu. ana kër yi. kër yi ba tey joxuñu ma ko. say kër lañ nangu. samay terrain fii Maris. sa entreprise tëj na. waaw. ñu tëj la kaso. ñu tëj ma ko sama doom feebar. sa doom feebar. ngi tëj gi ma tëj kaso. fukki fukki weer ak benn doom jaa ngi hôpital génnagul hôpital lépp Macky Sall moom ko teg mais teewul république bi laa gëm Sénégal laa gëm. mais xanaa amutoon ñu si dox euh, ay tànk jàmm pour mu delloo la sa. waaw mais xam nga man sama ngor moom ma gën a sama alal man lépp loo xamante ni ngor mënu la ko may ak sama dignité duma ko ñàkk jom di ko am te lépp bokk na si jàppale gu mu doon jàppale Ousmane Sonko jamono yooyu parce que Abdoulaye Daouda Diallo bu nekk ministre finance Macky Sall woo na ko ne ko delloo ko ay këram mais mu lànk. Abdoulaye Daouda Diallo waaw. mu woo ma téléphone ma bàyyil Sonko ñu jox say kër ma ne ko du ko def tey du ko def ëllëg parce que Sonko sama xarit la. moom Abdoulaye tey bu mu nangu woon jamono 2021 bu nangu bu ma nangu woon a bàyyi Sonko ànd gi ma ànd ko di ko défendre ci dossier incisem bi ba léegi waxatuñ ko mais loolu. <laughs> damay xam ne ma ko du am jàpp nga ne bés dina ñëw nga ubbiwaat sa entreprise jotaat si kër. waaw bu ma jëlee réew mi du ma ubbi entreprise mais ubbi Sénégal. bu keneen ñëw keneen jotee réew mi bu jotee réew mi tamit sama entreprise moom comme dafa tëj damay créer benn entreprise rek. pour maanaam jël ay ndaw jugal si ñu liggéey. samay kër tamit maanaam man maa ko moom. ku fi mën di nekk comme maa samay kii du leer su waa daanoo fay mhm. waaw d' accord jërëjëf euh, honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly euh, ñu wax ci li nga xam ne tey mooy euh, gis nga fan yële président nee na am na ay enquêtes yoo xam ne danañu ko def ci li nga xam ne moo fi jotoon na xew ci weer yi ñu génn ndax am nga yaakaar ñu dem ba xam exactement ñi fi faatu ak li ñu yàq ñan la ci seen loxo laale. loolu d' accord naa si parfaitement raison. parce que président de la République moom dénk suñu koom ak suñu sécurité. ak suñu santé. nit ki bu la dénkaloo jox la quatre six mille sept cent milliards nga war koo doxal da nga ko war a doxal maanaam ci rigueur. lu am ci réew moom mooy responsable parce moo war a doxal la war a doxal. bu fekkente ne 2021 mii mi ngi bi. nañu leeral 2021 Mimi Touré taxaw wax 2021 ñi fi deewoon kan moo leen rey parce que mi ngi tuumaal Ousmane Sonko jamono yooyu léegi lan moo tax 2023 ñëw mu bëgg tuumaal Macky Sall. ci ci ci li xew deux mille vingt euh, vingt trois bi mois de mars bi passé euh, mois de juin bi passé te mois de mars deux mille vingt et boobu fu mu nekkoon jamono yooyu xam nga politique politiciens yi dañ ko war a bàyyi te arrêté ko te waxante dëgg tax réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk. man mënoo nekk si wetu Macky Sall fukki at laaloon ak Macky Sall lu Macky Sall def si réew mi nga ànd seeg moom yaa tëj Karim Wade yaa tëj Khalifa Sall di nga gundaandeet ñëw ba soxla benn poste Assemblée nationale ñu bañ la koo jox nga génn ànd ak opposition bi nga xam yow yaa ko doon xañ ku si mel ni Ousmane Sonko. tey nga teg taxaw di tagg ay maamum naan dafa war a bokk dafa war a bokk tey nga xañoon ko élection législative te naan ko bala ngaa jàkkaarloo man damay seeti man damay wuy damay wuy Adji Sarr pare mais loolu Mimi Touré moo ko doon def mais bi mu génnee comme xamul na ni amul benn crédibilité nit ñi faalewuñ ko il faut que mu wutiwaat fenn crédibilité si Ousmane Sonko la ko mën mu taf Ousmane Sonko pour amaat crédibilité nit ñi di ko bàyyi xel. moom Mimi lii mooy maa ngi gis aussi beneen ministre xaw ma al euh, waa ji xaw ma Alioune Ndofène ma moom tamit fan yi yëpp mi ngi tàmbali pour bëgg nit ñi bàyyi ko xel muy wax Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko ñoo ñuy wax ak moom tey lu mu duggoon wax tey lu ko daal ñoom ñoo ko dugg ñoo ko yóbbee ndax ñoo àndoon na Macky Sall mais pourquoi moom muy accepté ñu def ko lu bon lu ñaaw loolu jamono yàgg yëpp muy dund injustice boobu tey jii ñoom ñu bàyyi Macky Sall bëgg a ñëw moom mu raxas leen euh, sang leen jox leen bàyyi ren pour ñoom ñu mën a continuer loolu yaakaar naa loolu injuste la mooy waa Pastef bi ak seen njiit Ousmane Sonko nañu xoolaat seen entourage ak ñi nga xamante ñoom ñooy wax ak ñoom. parce que ñoom ñi si baree baree bari dañuy ñëw pour affiser wu ci ñoom parce que nit ñi bëgg leen a bàyyi xel yooyu dem noonu te loolu tegul si yoon. kon moo tax dañoo war def enquête parce que man pacte de Bignona demoon naa. bañ demee Bignona lan waxoon lu wér la mooy bu ñu jëlee réew mi dañuy ñu ubbi enquête pour ñu rey nit ñi parce que ñooñu kat gënuñoo war a gore ñun ñii fi xam ñooy dund. seen waajur na leen war a toppatoo seen doom yi fa bàyyi dañ leen woowee fayal suñu njàng. ba pare ñaari bi heure bu at bi jotatee nañu ko def si benn raison. mais ban ko defee bi ko feneen. avion bi fi jëlee woon fii yóbbuñu bi ñoo bu ñu faata woon tey yii may wax a yow du ma du ma du du ma toog di wax ba avion bi daanu woon cax ci laa bokkoon jëloon naa fa kàddu aussi kon. bi ñu ñëwaatee mois de juin bi passé li fi am kenn mënu ko nangu parce moo gën a métti sax gën a ñaaw li fi am mois de mars parce yow foo dem ba réew moo xamante ni dañuy lakk xam-xam université kan mooy dem taal université bibliothèque université di lakk ay berte yoo xamante ni ña fay dugg du nekk sumuy doom man sama doom du dugg berte man du ma dugg musuma dugg berte du ma ko dugg du ma dugg teer samay doom du dugg teer du dugg car parce que yàlla may na ma ko am naa ko bi yëpp ak pouvoir bi seen doom du ko dugg parce que am nañu ko kon doom yëpp ja doomi jàmbur yi fi dugg yow nga bokk si ñooñu nga ñëw di tojoo di ko yàq wala ngay santaan ñu ko yàq kooku ko def crime nga dem consulat yi nga xam ñoo ne si àll bi yi di toj foofu di yàq kayiti jàmbur yi pour nit ñi bu ñu bëggee am séesul sax mënut ñu am séesul fi mu ñu ngi nii tëj consulat mala Milan bi est-ce que fii ba élection doon ko ubbi wala déet suba kan mooy perte fan la wotee suba état gépp nga xam ne opposition ma a gagné tey mais loolu lépp ñu koy def dañoo war a xel man nga xeex si combat politique mais doo yàq sa réew. am réew ku ko yàq doo ko defar ku ko yàq bëggoo ko. kon may woo xale yépp ñu dellusiwaat à la raison xam ni kenn warul tax ñu yàq leen moom. parce que ñoo moom université bi ñoo moom réew mi. Hmm. Macky Sall pare na day dem. comme par na day dem na nan bàyyi seen carte élection yi ñu téye ko ëllëg ku fi nekk te àndoog ñoom wala defoo leen bëgg ñu woote la nga daan. d' accord léegi euh, sëriñ bi tey yow da nga bëgg a dem ci élection présidentielle 2024 tey euh, li ñu li ñu lay ñaanal mooy nga bokk ci élection yi mais bu yàlla defoon tey euh, ñu rejeté sa sa candidature ndax di nga pare pour dem jàppale ji ku mel ni Karim Wade. ndax ci ndax ci wàllu Sénégal euh, man man euh, dama ñaan yàlla sama candidature ñu accepté ko parce que lépp luy tax ñu war a euh, sama candidature war a jàll yàlla may na ni am naa ko. mais article bi mu wax sànq. mais article 28 dafa waxul ni dafa wax ni boo mënee lire te mën na ma liir ma na ma bind sama tur loolu licencié que lu am solo du français mooy doxal réew mi français mun a avancer Sénégal parce que su 1960 ba léegi nee naa la ñu ko jiit ay jànkatu tubaab lan te Sénégal avancé wul te gisoo benn réew bu avancé ci làkku jàmbur. mais bu fekkoon dem na tey ba nga xamante ne ni euh, dem nañ ñu euh, sama candidat jàllul damay waxtaan ak sama coalition waxtaan ak sama parti jël sama programme ñi nga xamante ñoom la jàll dogal ñu jàll ku ma ci seet si sama programme méngoog sa programme ak sa bëgg-bëgg ci réew mi su boobaa bu ma sama waa parti àndee ak sama coalition ñu ànd ak yow jàppale la man loolu laa gëm. waaw jàppale la si. Euh, ay conditions wala dara. non sans man du ma man du ma teg kenn condition sama condition première mooy defar réew mi. Mhm. indiwaat àll jën sàcc. Mhm. napp yi. jën yi am am géej gi am jën. ñu delloo nappkat yi xale yi maanaam espoir parce que xale yaa ngi dee ci àll bi am espoir pour toog seen réew. parce que xale yi lu tax maanaam ñoom ñuy dem ñëpp amatul yaakaar ci biir réew parce que alal réew yëpp caxat caxate nañ ko. loolu yaakaar naa ne il faut que ñu delloo si waat yaakaar delloo si yaakaar googu noonu dafay bokk ci ponk yi nga xamante mooy pili yi war a téye réew mi 2024. te dañ ko boole si programme parce que ndaw ñi bu leen delloo seen moomeel rek jox leen seen kanam dañu liggéey daan toog seen réew. Ah, am naa si yaakaar de ba keroog koy gis parce que wax dëgg yàlla xaw ma si lu bari parce que bi mu demee ba léegi déggantuma téléphone ak moom xaw ma si moom dara mais daal jàpp naa dana ñëw maa koy ñaanal mu ñëw si jàmm parce que Karim Wade defal nañu loo xamante ne moom duñ ko fàtte bu mukk hmm. bàyyam suñu bàyyi la liggéey na sëñ Touba moo joxe titre foncier Touba bi buy hmm. masàllu ko jinaan euh, bon def na ci réew mi loo xamante ni benn président mosu ko fee def hmm. kon bu fekkee tey doom Karim suñu frère la nekk na candidat ñibbisi na loolu euh, eh na ko waa PDS ak euh, ñi mu ñi ko sopp jàppale rek. d'accord ah. léegi euh, Cheikh Abdou Bara Dolly yow nga nekk njiitul mouvement nekkal fi askan wi Touba màggal gi li si des bëreewul CRD bi commencé nañ ko comité d'organisation bi mais kero Cheikh Bass ci CRD bi dafa wax ne Touba bu tawee ñaari yoon ñetti yoon rek dëkk bi fees dell akum ndox. wax na tamit ci lu jëm ci liggéey yi travaux yi ni mu yeexee euh, yow ban gis-gis nga si am en tant que euh, député. waaw gis-gis bi ma si am rek mooy bi ma si amoon ci euh, bi may wote budget bi parce que budget Sénégal bi Touba génn woon nañ si xaalis bu bare bare bare boo xam ne dafa yoroon jëm ci Touba mais ni ko Serigne Bass Abdou Khader waxe noonu laa koy waxee parce que liggéey bi dafa yeex ba fan yi si ginnaaw sax interpellance ministre ministre des finances wax ko ni ko mais montant yi xam dañ koo génn mu jëmoon ci Touba. ci loo xamante ni dafa doon concerné jëm si mbirum assainissement mi jëm ci mbirum euh, ndox mi mooy forage yi fan ngeen si toll ak tël yi ñu war defaraat euh, mu ni ma am na ci yuñ ci dégacé euh, yu baree bari yoo xamante ni ña nga ca. mais ba tey yeex na parce que man dama jàpp ni Touba àgg na foo xamante ni wurtuñoo xaar rek màggal jot ñu defar Touba. Ah, dañ ko war def dañu war benn plan spécial pour Touba. Mm-hmm. man loolu laa gëm te dinaa ko porter. incha allah dañuy def benn plan boo xamante ne dañuy jël mille milliards spécial pour Touba. fu muy jóge xaalis boobu. xaalis si état bi lay jógee état Sénégal li Touba di dugal ëpp na mille milliards par màggal dañuy jël maanaam sax programme bi day dugg maanaam si euh, euh, ci kii lay dugg ci ci programme bi nga xamante ni mooy bit Sénégal bu 4 ans bi nga xamante ne moom dana ko def nga xamante ne diggante 2024. ba deux mille vingt six. mooy seen programme bi. seen programme bi naan waaw bi nga xamante ne deux mille vingt ba deux jël Touba ci biirum assainissement dugal si cinq cent milliards danañ jël lii def fii def fii def fii def fi nga xamante ne programme Touba lay doon. boo liggéey ñu def programme feneen mais man loolu laa gëm te moom war naa mën a nekk parce que Touba yu ndaw ndawaan yii ñu koy jox ay trente vingt milliards dix sept milliards yooyu yaakaar naa ni du loo xamante ni du du lu mën a jëmee Touba. kanam ay vingt deux milliards ak vingt milliards yi. non non non loolu deful Touba. def benn programme spécial pour Touba comme ni nga man noonu laa ko war a defee man bu ma jotee réew mi damay jël maanaam mille milliards yoo xamante ni damay jël maanaam 500 milliards yi fexe ba Touba assainissement bi ñu def ko jël maanaam 30 milliards ba cinquante milliards def ko ci ndox mi pour ndox maanaam mën a baax pour le moment bala ñu am maanaam ladde guerre boo xam wala ñu bënn euh, euh, ay ay ay ay ay tuyau jële ko. Touba Bogo et Sadio indi leen Touba pour mu mën a am ndox mu neex man loolu jàpp naa ne bu ñu ko defoon rek ba pare sensibiliser li nga xam mooy bi parce que ndox mi euh, ruusi ba fa nekk ku ne xam na ni manque ndox gi bokk na si parce que. tiwo yi fa nekk tiwo yi dafa yàgg ay nu yoo ay ay fer lan woon. dañuy xumaag boo xoolee ndox mi daanaka bu kii après. xumaag boobu noonu mooy tax ndox ma di xonq ba noppi ñaareel bi forage yi nga xam ñooy doxal Touba amuñu autonomie maanaam courant bu doy boo xamante ne bu courant bu coupé ndox dootu amati léegi balaa courant bi ñëwaat bay pompe bay delloowaat tuyau yi ñuy feesaat dana dire parce que maanaam lu mat 48 heures. pour nañu mën a problème bi mooy euh, ndoxum Touba màggal gu nekk day day day am jafe-jafe du am mais beneen bi aussi mooy lu jëm ci wàllu màggal gi ren ji keroog Cheikh Bass wax ci nawet bi. Euh, lay nekk ci nawet bi. te aussi loolu comité d'organisation bi ñoom yàgg nañ ko wax. mais état bu Sénégal dañu gis ne ñoom daal dañuy ba la ñuy wax ci wàllum assainissement Touba wala dañuy bàyyi rek ba ba ba mu ne këtt na jonn mhm. waa xam nga loolaa lay wax ma ne la ba tey programme bi nga xam ne war a am foofu dafa des parce que état bi ñoom war a investir Touba investir parce que boo xoolee euh, ren jii may wax ak yow euh, ci bits bi nga xamante ne mooy bits deux mille vingt vingt trois bi vingt sept milliards lañ jël pour dëgg ko Touba. 27 milliards milliards. 2000. 2023 bi. 2023 bi yëpp. waaw 27 milliards. léegi ñu ne la boo xoolee projet projet construction de route mooy route yi nga xamante ne koo defaraat foofu noonu. Mhm. y' a 2 milliards dañ si def. 2 milliards 2 milliards. nga xam route yi nga xam dañuy yàqu. ñu war leen defaraat yooyu. 2 milliards si def. pour ci defaraat tali boo xoolee tey ji li jëm ci mbirum. Euh, maanaam defaraat autoroute bi xam nga autoroute bi ak yooyu boo xoolee tëli boobu foofu noonu ni fi defaat maanaam cinq milliards dana fa def moom la fa war def quoi. léegi tey boo jëlee li nga xamante ni moo jëm ci mbirum accès de potable ndox mu ndox mi nga xam moom la ñuy naan ndox mu sell mi 315 euh, millions lañ si def 315 millions lan man lan la man ci forage 315 millions lañ si def tey ren boo xool li nga xamante ni moo jëm ci mbirum euh, procès. amélioration de l'eau potable de Touba mooy li ma la wax noonu trois mille trois cent quinze millions la boo jëmee tey li nga xam moo jëm ci mbirum assainissement euh, Touba ci gestion de l'eau euh, bu ndoxum taw piyal bi ñu ngi ci def maanaam euh, dix sept milliards. mooy ndox mi taw bi. waaw waaw waaw dix sept ndox mi waaw waaw léegi dix sept milliards mooy engagement bi mooy fi toll nii maanaam at bi man nañu engage mm-hmm. mais li ñuy fay nga xam maanaam paiement lay doon crédit de paiement. ñu ngi si def maanaam 7 milliards 500. est-ce que 7 milliards 500 mën naa régler problème mu Touba. ci ndoxu taw bi waaw moom lañ si def ren moo nekk si budget bi léegi lu nekkul si budget bi fan nga ko mën a jëlee lii mooy budget ci Sénégal boo xamante ni man pelle naa ko ci wot bi tax ma wote ko pour mu war dugg Touba mais ba tey jii maanaam li nga xamante mooy exécution bi dafa xaw a yéex. ndax tey boo xoolee comme ni ma la wax rek tey bi mu mujjee def sama gëstu li si def ko ma dugg 30 pour cent te fi mu toll nii maam ñi ngi si daanaka 6 euh, euh, et 6 et 7 7 mois ah yaakaar naa loolu moo lay wane la exécution bi dafay yéex trop trop mais kon nga xam ne nag économie bu Sénégal bi euh, dafa xaw a day waar parce que li fi jaar ci ay catastrophe xeex euh, écrojus bi manifestation yi nit ñi xawoon ragal ba mu feeñ si tabaski bi yooyu yëpp day day am impact si benn ci ci population investisseurs yi tamit ñëwutuñ ñëwuñu euh, yooyu dafay xaw a am impact si li nga xam mooy économie moo tax ka te ku ne xam ne ñun ñu ngi dundee ci diggante li ñuy dimbalee ñun ak li nga xam moom la ñuy importer muy ñëw muy douane impôt ak yooyu nit bu fekkente ne liggéeyoo doo mën a déclarer impôt. nit bu fekkente ne tey tukki woo ñëw indi ay produit eh, euh, douane du mën a am dara bu ay restes yoo ne da ngay wala te restes yooyu ci li ñuy jël maanaam fenn fu nekk ñu partagé fa dara pour que loolu mën a dox. kon daal man si euh, global li nga xam moom laa jàpp mooy tubaa moom. Mm-hmm. état du Sénégal dafa ko war a xoolaat beneen bët bokkatu mu nga xool première mooy Touba li Serigne Touba bëgg si Touba mooy statut spécial bi. ñu defal ko ko. deuxième mooy état Sénégal jëf benn projet mille milliards jagle ko Touba. troisième mooy Touba si boppam ñëpp ña fa dëkk nga xamante ne am na loo xam ne war nañ ko euh, seq ak réew mi muy seen mbirum taxi ñu del ñu def ko parce que loolu mooy tax ko Touba mën a jëm kon te bu ñu ko defee aussi ñu yemalal ko si biir dëkk ba loolu laa gëm te loolu mooy li war a am. jërëjëf honorable député ñu lay sant di la gërëm. waaw maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci émission bu am solo bi nga xamante ni tey moom nga ma invité ñu war see waxtaan muy samedi euh, diggante 15 euh, heures ba 16 heures euh, muy émission boo xamante ni ñëpp dañ koy bàyyi xel di wax rek ni askan wi nañu gën a bàyyi xel seen diggante ak seen réew nañu diggante bàyyi xel seen diggante ak seen morom yi di wax rek ni injustice bi ñu teg doomu aadama yi nañ ko bàyyi li nga xamante ne mooy Euh, mitinu Ousmane Sonko bi nga xam mitin di investir boo xam da ko war a programme def ko ñu aayi ko ko loolu tegul si yoon parce que ku nekk yaa ngi koy def man maa ngi koy préparé pa def dinaa ko def ñeneen ñi def nañ ko pourquoi pas ñu di ko tere parce que nag loolu na loo xamante ni malgré que am na ay kaddu yoo xam ne ko kaddu yi moom kenn rafetlu ko ndax budul man du am wala pays bi dana daanu kooku yaakaar naa ni nit wuru koo wax mais nit boo ko tegee fenn leen li ba mu mer buy wax leen li sax du ko tey kon il faut que ñu bañ a jàpp si waxi nit ki ba tax ka nga bëgg a euh, xañ ay euh, yaakaaru Sénégal yu bari yoo xam ne nga ko jëme si moom beneen bi nit bu fekkee dangay jël benn décision da ngay sukkandiku ci li nga xamante ne mooy ay loi mm-hmm. ak ay arrêté ak li nga xamante ni mooy euh, ay règlement mais munoo sukkandiku si benn kàddu parce que kàddu tënkuñu ni ñu tënk mooy ci kër lay nekk. dafa war a wax dama ko aaye parce que damaa sukkandiku ci arrêté ci arrêté bi wala damaa sukkandiku ci décret bi wala dama sukkandiku ci règlement bi wala damaa sukkandiku ci constitution bi pour arrêté li nga xam mooy meeting de investir yaakaar naa loolu euh, euh, ci réew tant loolu amul nag Sénégal euh, kenn mënu ko doo fu mu jëm maintenant luñ li ñu mën na def te wax ko mooy Sénégal jàmm lu ñu ko yéene. d'accord Sénégal bu ñu ko yéenee jàmm nag bu ko Sénégal yëpp yéenee jàmm comme ni ma ko yéenee jàmm. nañ jël doomu daar yi jox leen réew mi. jërëjëf honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mbokk yi mooy njiitul mouvement nekkal fii askan wi moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi ci rajo Réew mi FM mu yam samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.